amul ma bëgg a laaj lan mooy problème mu géer ak géwal man loolu laa bëgg a laaj géer ak géwal ba tax parents yi jël seen doom yi di leen tóttiire nga bëgganteeg géwal ñu lànk duñ la ko may metti na bala ngeen a xam say ko say koo bëggul moo metti mu dal la ku ko dundul nag mënoo koo xam bàyyi leen xale yi géer ak géwal amul fenn ndax lépp lu géwal daan def tey géer ñaa ngi ci nag di ko def nag amatuñu benn différence te géwal nit la doomu aadama la tëgg nit la doomu aadama la lawbe même chose waaye tëggi ma ni tax ma faa leen ñoom dañoo xam seen bopp di sëy ci seen biir gis nga xool nag bu doon danga koy gàddu jang jange ko ci ba sa nawle nga jox ko ko ka nga bokk raas ak xeet bu doon dangay gàddu sab xol dem ba ca moom nga jox ko sab xol ngeen bëggante yéen ñaar kon du metti mais xol la kenn mënta tee xol mooy dem ak boppam ñaata mag a fi nekk tey dugg 40 ans 45 ans di dund naqaru sëy dem sëy di misère ndax mbëggeel nekk ka nga ka nga dëkkal ci biir kër gi am ak moom ay doom te boo ko mu ngi fi 40 ans 45 ans ba 50 ans dundoo mbëggeel dem ba am ay doom rusa def lu ñaaw toog ci sëy di jooy guddeeg bëccëg di dund naqar woo xam mënoo koo wax kenn dafa metti nañ bàyyi xale yi ñuy weñ seen loxo di leen dugal ci ay leneen loo xamante ni xamuñu ko xool mooy bëgg nit bu bëggee nit may ko ko ba ko moom moo xam lu mu fa for màcc waaye jël nit nag ni ko fii ngay dugg kii géwal la duma la ko may kii mënalu dara yamatu nag ci géer ak géwal da nga dégg ñu ne kii mënalu la dara xeeb ku góor ki bañ koo may jabar wala ñu xeeb famille ku jigéen ki bañ seen seen doom bu góor dugg ci teguñu ko fenn ay jullit lañu te tey koo ci ne doo jullit mu mere la ñoo tax nga wax ma ko te ñun duñu def defuñu jullit buñ jugee duñu wax waxi waxi jullit kon nañ leen def ndànk xol kenn du ko torturé bu fekkonte ne ku nekk yaa moom sab xol danga koy jang-jangee ba fa nga bokk dem ci géwal ba jox ko ko comme géwal bu jigéen nga boo moomoon sa xol da dem ba ca géwal bu góor ba nga jox ko comme géwal géer nga boo moomoon sa xol da dem ba ca géer ga nga jox ko waaye xol la kenn moomul kenn mënu koo téye nit ñaa ngi misère ndax mbëggeel xale yi tey nag yeewu nañ moom macha allah féroce nañ ndax ñoom ñi ngi dem visé visé fi ñu visé ñoom di bëgg ko ñu bëgg di leen sëyal mais nag ba tey taxul dara faju nag ba tey fañ ko naan bañ a ko fay bañ ba léegi gëm leen yàlla gëm leen yàlla ñu ay jullit dañ ay doomu aadama lañ géeru géwal amatul bàyyi leen xale ñu sëy mag ñi fi nekk ay 40 ans 50 ans ku ci def na ko sudut noonu ñu weer la fu ñu tas fa sa xibaar fu ñu ne dugg nga fii gis nañ la fii te lu ci bari ñàkk mbëggee la ko waral bàyyi leen xol du om bañ koy bës nañu bàyyi nit ñi bëggante ñuy sëy ak ñu bëgg xol de mbëggee la fa miti de te du ay caaxaan bala nga koo xam nga sëy koo bëggul